أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyoo ku ci nekk turam ak santam di ñaan yàlla vidéo bi laa ngi fekk leen ci jàmm incha allah donc ñu xaar mbokk yi dugg si comme live bii nii nekk laay bu am solo bu ñu amal solo incha allah donc euh, am lu am war a amal solo sénégalais yi luñ ci war a divulguer ay euh, machination yoo xam ni gars yi ñoo ngi ci kaw ok euh, donc you know ay ay tuuti rek donc dinañu wax ci euh, manifestation bii di ñëw le mars bi nga xam ni ñoom dañ nee nañu Malick Gueye dañu organiser manifestation mu jaral leen mobiliser wu cette fois si ñu mobiliser xaalis cotiser loo nit yi ay cotiser yi c'est de la poudre aux yeux ñoom sàcc yi Hmm? ñoom ñëpp ah crocodile affamé yi nga xam ni euh, yàgg nañ système bi yi ñoom Aïda Mbodj ok ñoom mi Diaz ñaxuñu xaalis soxlawuñ cotisation yooyu ak ñeneen ñi nga xam ni ñoo jël yàgg nañ nekk si ay blanchiment d'argent di wax ay waxi way Pastef ñoo cotisé chaque fois il vous dañu fexe ñoom lépp lu ñuy def ci côté a xaalis dañuy fexe créer benn liste wan leen ko mën nañu wax pour ñu ne waaye c'est par ay mesures par kii de transparence moo tax ñu koy def des raisons yu demee noonu euh, mais am na leneen lu ñu nëbb ci ginnaaw you know gars yi leen ko seen weccet yooyu noonu du loolu ok ay blanchiment d'argent yoo nekk ci ginnaaw ñoom ñuy liggéey toxkatu yàmb euh, jaaykatu yàmba yi xam ngeen ni mu demee Casamance ñi doon jaay yàmba après ñu dem dem Europe maa ngi ñëw léegi ci benn information bu am solo bu ma leen bëgg a divulguer pour euh, te dama koy divulguer pour euh, bon dañ ma ci informer euh, ñu ci wax ma ci wax gouvernement Sénégal d'abord di ci wax ak sénégalais yi di anticiper di anticiper pour que ñoom ñu xam ni comprendre nañ fi ñu jëm comme comme ça seen. machination boobu ñu nar a kii pour taal réew mi comme ça ñu ñu arrière ok comme ça du mën a nekk ñu wan leen ni xam nañ ñoom fi ñu jëm moo tax ñu koy teel a divulguer ok donc euh, je pense que normalement euh, Sénégal euh, Macky Sall ak ñooñu informé nañ leen ci ok anyway pour delluwaat fële avant may ñëw ci loolu pour ngeen comprendre ne gars yi jaay yi ñu jaay yàmbaa Sénégal au niveau de la Casamance xam ngeen ñi may wax MFDC yi parce que ils ont ils ont infiltré tout le système ah ok ils ont infiltré loolu il faut ngeen comprendre ko jusqu'à ñoom capitaine Touré ok job bi ñuy job gratuitement noonu c'est que qu'est-ce qu'il y juge boobu pour ngeen comprendre rek la moo tax benn juge affaire Adji Sarr bi mais un juge quoi ak ni mu puissant yi mu ne non mënuma laa laal dossier Adji Sarr parce que sama jabar joolaa la loolu ci ban république la ñu nekk loolu ban réew la ñu nekk loolu rek war na leen stimuler seen moyen ngeen di non y problème yaa Angus comment se fait que un juge ragal benn dossier parce que pour des raisons ethniques la ngay xam ne am na leneen luy daw noonu lañ demee ñu dem laaj réfugié France un peu partout ñu nekk fa di jaay cocaïne ok bi ñu jaayee seen cocaïne donc il faut ñu blanchir xaalis boobu dugal ko ci seen xeex bi xeexu MFDC bi ku ñu wax nag ñu naan non Ousmane Sonko bokk ci mënoon na nekk maire de Dakar ndax mu daw nekk maire de Ziguinchor ndax mën na bëtu ci moom anyway affaire Adji Sarr beeg yooyu pourquoi bi ñu jàppee bi ñu jàppee rebelle yi astafurlah bi rebelle yi jàppee soldats yi dégg ngeen soo Sonko wax ci mosu leen dégg mu ŋaan ci gémmiñam ak li muy mën a dénoncer yëpp non dañuy waxante dëgg te yàlla tax dégg ngeen Ousmane Sonko ŋaan ci moom ak ñoom gi mari Sagna ah lan moo tax Atepa bi nga xam ni livre Ousmane ko wax naa leen ko waxal spoliation du chronique autour d'une spoliation foncière waree ba ah page 138 de ce livre là moom moo ni Atepa moo dugal Frank Timis biir Sénégal plus tard mu nangu Atepa jox ko siège donc gars yi il faut ngeen connecté dates yi dem leen xool yi en 2012 xaaral ma génnal leen affaire bi je pense que c' était là quelque part euh, ngeen dégg Guy Marius Sagna la mu wax en 2012 par rapport au MFDC ñu nekk leen manipuler ngeen mel ni ay dof man li ma metti ci yéen ma leen juróon ngeen xam naa leen dóor ba ngeen dee yéen boy yu con yi nga xam ni on vous manipule vous êtes juste bête quoi ah vous êtes bête non sincèrement vous êtes bête les gars là vous manipulent depuis booba ah en ah, 2012 fan la kii bi nekk di sax euh, Guy Marius Sagna lan la wax attendez je vais essayer de trouver la truc là anyway naa ko posté sama page ah il parlait d'autodétermination autour du MFDC naa ko def sama page ngeen ñëw xool ñi ko yor publier leen ko en 2000 xaatu woon affaire yi nekk fii ci seen agenda la ñu nekk ba ci ñoom ba ci ñoom gars yi nu forum civil bi le gars du euh, forum civil la Birahim Seck ñooñu ñëpp ci ci deal bi lañ bokk et vous vous manipuler la comme des bleus là ah parce que loolu yëpp parce que lan la ay journalistes yu cuune ak gouvernement bu cuune yéen yéen ñëpp yéen a waroon dénoncer li yëpp bu yàgg ah ils sont là à essayer de brûler ce pays là anyway ñu delluwaat ci li ñu tax a jóg li ma leen di wax nii sénégalais yi bàyyi leen ci xel bu baax ñoom Déthié Fall ak son ami bi nekk chef wu Niger euh, affaire farine bi boobu grand moulin waree ba affaire farine bi dañoo nekk si benn combine ak ñoom Sonko ñoom ñëppoon ah. pour indi fitna ci réew mi xam la la ñu def la mooy seen plan instant bi déglu leen baax li ma leen di wax dañu bëgg téye farine bi créer genre grève bu ñu créer genre grève parce que ils ont compris que tout le temps les mouvements révolutionnaires les mouvements de masse de foule et buy commencer fan lay commencer toujours ci affaire jàng ngeen ñi jàng gis ngeen Germinal Étienne Lantier ah bi mu formé kii Germinal mais mais mais Émile Zola c'est un naturaliste ok donc ci auteur di naturaliste yi la bokk bu ñu xoolee courant littéraire bi mu bokk ah ok pourquoi ci livre mu def ñoom père Bonnemort ah beneen Étienne Lantier forme ba pare la moo nekkoon seen subconscient benn kii mooy du pain du pain yéen a ngi fàttaliku loolu ñu lire germinal du pain du pain parce que pourquoi ñu jël loolu année parce que c'est même même schéma la quoi donc qu'est-ce qu'on voit gars yi ñoom instant bi dañoo nekk ci benn deal ak directeur seen chef bi ñoom mu ñëw la euh, seen chef ki nekk ci kaw ak ñoom Déthié Fall pour mais créer benn grève boo xam ne ay mburu affaire yooyu du am ci dëkk comme ça ñu jaaral seen agenda pour créer seen événement bi ñuy créer le 8 mars loolu nekk deuxième phase bi maanaam ñu shut down dëkk bi fitna am ci dëkk bi mu tourner ci ay violence parce que lu ñu bëgg may génne peuple bi la ñu bëgg maintenant nee nañu ñoom ils sont dit que bu ñu jaaree ci mburu mi wala ceeb bi <laughs> Europe seen ay surtout mburu mi bu ñu fa jaaree mais dinañ mën a mobiliser Sénégalais yi loolu mooy seen agenda instant bi am na nag beaucoup d' américains yu nekk Sénégal yu observe Sénégal ok seen service secret yaa nga fa dañu génn ay information di ko dugal ci ay Europe say fa lañ mën a yem pour ngeen comprendre am na ñoo xam ñoo ngi liggéey ñoo ngi fii Amérique nekk ay sénégal yu nekk Amérique di liggéey ci système bi fii di informer nit yi ok di informer les gens di informer ay journalistes d' investigation comme Baba Baba Aydara ni mu demee woon par rapport ak pétrole bi yeneen nan la ñu xamee woon pétrole bi ni mu demee mais fan la Baba Aydara doon jëlee ay information bu lu tax mu def liggéey boobu doy waar boobu lu tax mu def ko kon di def liggéey boobu ba léegi ok so ngeen bàyyi xel ci loolu te dañ leen koy wax pour tëj buntu boobu ok maintenant sénégalais man yéen ñi nga xam ne dañ ne dañu manifester le huit yéen soleil la leen bootee loolu moo leen dal yéen non lan moo leen dal yéen yàlla jox leen cerveau intelligent mais ngeen koy foowee ko comme des bêtes sauvages comme des bêtes sauvages laa wax tellement vous énervez quoi ah mais vous énervez mel ni ay mala 1960 ba léegi ñoo ngi leen di nax fii ngeen toogoon Cheikh Anta Diop c'est mais peut-être maintenant c'est lié au chromosome ci chromosome yi la nekk dañ ko hérité de vos ancêtres mais bi de vos grands-pères parce que fii la Senghor ñëw di ñàkkante ak Mamadou Dia ak Cheikh Anta Diop seen papa ak seen maam bàyyi fi Mamadou Diop ak euh, ah, ma naan Mamadou bàyyi fi Mamadou Dia ak Cheikh Anta Diop dem votel Senghor ni ngeen fi def keroog ak Ibrahima Fall fii yàggul lu baax daal ngeen bañ tout le temps lu bon rek ngeen di ñoo leen di manipuler pour lan ba kañ ah, yi ñëw nañu ñoom dem nañu créer seen liste andi wuñu benn coow ah, ñu tegal leen ne liste bi ñoom ñoo nangu réfé euh, euh, euh, référendum ak lépp lu jóge ci Macky Sall lépp you know ñoom ñoo ko nangu ñu signé ko nangu ko ñu joxe seen costion ñu nekk seen biir parce que entre crocodile affamé la moo tax may utilise le terme crocodile affamé c'est juste des crocodiles affamés de pouvoir donc il faut mu am guerre avant muy am seen biir ñu teg seen list mu am fa ay xëccoog ay jeunes yoo fu dof yooyu am yàlla weer leen ñu taxaw ñu ne ñoom la huit dañoo génn yéen ngeen di da leen di topp après ñu gëmloo ne Sénégal ngeen di xeexal te yéen a ñàkk fayda wallahi comme ay mbaam ñu leen di topp comme ay mbaam comme ay mbaam xol bu tàng la ñuy waxee ak yéen am nañ droit wax ni comme ay mbaam parce que li ñu leen xeexal xeexal leen ko seen bopp li ñu leen xeexal xeexal leen ko seen bopp am nañ droit wax ko boobu léegi ñu leen di xeexal comme combien d'années mais chaque fois comme des animaux sauvages ah mel ni yéen seen yaay yi dañ leen a ëmb neuf mois ci ay foo ko ah ci ay foo lañ leen ëmb ngeen ñëw comme des bêtes chaque fois ñu leen di manipuler gisu leen fi Mamadou Diop anam ana Mamadou Diop ah ana quinze quatorze xale yi dee fii karo kan moo perte ana Ndiaga Diouf mais vous continuez dans vos même conneries ces politiciens la déglu leen ah, il faut ngeen déglu pour ngeen comprendre déglu ok tellement vous mettez les gens en colère quoi On a envie de se calmer, de parler. You know, I mean, just crazy. déglu leen di déglu leen déglu ce discours là ok je vais vous mettre ce discours ngeen déglu ko bu quoi pour ngeen comprendre exactement yéen lan mooy ngeen déglu seen subconscient ngay wax ah, subconscient ah, déglu leen kii mu indi woon coow bu bëri gis ay frustration yu ci amoon ñu foogoon ne que dépassé nañ frustration yooyu mais bu liste bi génnee ñu gis euh, ñeneen ñu jóg wala keneen sax ku jóg ci mel ni docteur euh, Babacar Diop wax ne carrément peut-être il a été par rapport ak ni ñu euh, bi mu nekk loo xamante ne peut-être ñu ngi ko doon xaar ñu ngi xaar sax yeneen frustration bi ñu gisee liste bi ba pare mais naka nga jàngatee yooyu frustration. nee boo amee expérience ay dëmboo jàll. Ah. li nga xam ne wax bu yeewee askan wi frustration. parce que partie su fekkoon ne dañu am deux cent sièges wala ñu am mille sièges supposons pour pouvoir ko à l' assemblée nationale du tee foog mu am frustration heure bu investiture amee foog frustration am li koy waral moo di. sentiment d'appartenance bi nga xam ni yow da nga engagé wu ci sa coalition engagé wu ci sa parti engagé wu ci sa leader jàpp ni lu muy séddale yow yaa ci war a ëppale muy aussi teraanga yoo xam ni au delà de l' aspect dafa am loo xam ni sa diggante la ak say militants mu war la sagal loolu ku jàpp ni ca nga bokk suñ la ca boolewul dafay indi beneen frustration waaye ma bëggoon a dénk ko ñaari yëf bi moo di ñun ñëpp dañu investir andoo ni ñu investir andoo may kenn ku nekk xam na ni investiture yu difficile ah. la ñu am parce que nombre de partis yi nga xam ne ñoo nekk ci biir coalition Yewwi te benn bu ci nekk am daraja benn bu ci nekk mérité woon yow rek ñu jagleel la liste bi yépp kooku bu kenn ku ci nekk gis sa bopp dana compliqué ñaareel ba. kenn ku ci nekk euh, kenn ku ci nekk gis ci sa bopp ok gis ci sa bopp quoi. place moom la ku bëgg am te place yooyu limité ñetteel ba enfin place bi nga xam ne ku nekk moom nga bëgg am place bi seen subconscient yi ñooy wax. moo di ñun ñëpp kenn ku ci la nga mais bëggaloo ko sa bopp rek mais ko bëggal tam ña nga li nga bëgg bëggaloo ko sa bopp rek mais da ko bëgg ñi nga àndal seen subconscient yi ñooy wax ah? de parti la affaire de club quoi ok war a baax askan bi. war a baax askan bi moom li koy avancé loo mais non ñoom seen dama ni. programme yu yi waxoon naa ne ko subconscient dafa autopilote mooy gérer quatre-vingt-quinze pour cent de xalaatu nit ñi dafa am doole lii mooy li mu nekk ci boppam mooy li muy dund chaque jour moo nekk ci environnement am moo koy wax loo nii ok ñoom ñëpp même chose léegi kii léegi ñu ñëw ñëw ñu am ay problème xoolal parce que fii dañ ko xam dëmm moo tax ah ñoom maître Moussa Diop Aïssatou Diop Fall comment Aïssatou Diop Fall mais naa ngi déglu Aïssatou Diop Fall mu invité maître Moussa Diop mais di ko caresser dans le sens du poil ah ay Babacar kër laa bu Thiès mais attendez bu nekkoon amul leen problème biir Yewwi Askan Wi doo leen fi taxaw day di sànni xeer Askan Wi yéen a gën a xam ni Sonko est pourri jusqu'à la moelle des os yéen a ko gën a xam yéen a nga xam ni Ousmane Sonko fenkat la xamu leen ko woon bi ngeen di dugg non sincèrement xamu leen ko woon affaire Adji Sarr bi seen xel teeyul sincèrement bu nekkoon askan wi moo leen tax a jóg yéen da ngeen non non bi ñu taxawee ñu ñëw di taal këru nit yi di taal këru ndax ay Sonko li mu dem ay kii personnel am plaisir personnel am ah ay nit dee ci est-ce que dénoncé ngeen ko non da ngeen a kon ni ànd ak ñoom biñ fi jàppee soldats yi keroog fii soldats yi qu'est-ce que vous avez fait maître Moussa Diop ak ñoom Babacar Babacar Diop yàlla moo leen di weer en fait mais comme le peuple daf si bëri ñu bet des journalistes bet ah ça passe quoi ça passe mais foo leen toog la ñuy wax gain boo leen fa amuloon problème doo leen fi toog di wax lu tax ngeen di leen di déglu pourquoi ils ont droit à la parole mais on na a rien à mater de ces gens-là nañu disparaître nañu disparaître war nañ leen ni ñoom nan la ñu mel bu nekkeen nag affaire politique parce que Sénégal fi mu toll nii bu nekkeen ni nit ñi bëgg ñu yeew ok c'est c'est yéen la maintenant dañ la dañu taxaw benn mi Dias toog en France ah il fait déjà le tour du monde il a la nationalité américaine Barthélémy Dias passeport américain la bu mettee day génn dem yoonam den gëmloo ay xeexal askan wi toog France ay ñu mel ni ñoom Bengelloune là ces escrocs grand Ben Bengelloune là Ben bi nga xam ne amul parti politique bu mu deful fu ne la nga langaamu may naa ko xonk kooku noonu ngir mu toog ci wetu fu ne langaamu na fa dem ba nekk paa bu moom nekk doomu doomu Atepa a Atepa di leen jox xaalis quoi ñooñu ñooy toog tey naan way toog ci wetu ci wetu kii ñu naan noo nañu organiser ay à Paris ou en Europe ah mais allez vous faire cuire deux heures yéen a ngi sonal sénégalais yi vous foutez du tout à part que da ngeen bëgg exister déglu leen déglu leen ces ces crocodiles c'est la Monter le message que je voulais lancer à la diaspora. Vous n'êtes pas la 15 région du Sénégal, pas parce que c'est que c'est une réalité. Vous êtes la 15 région du Sénégal parce que tey suñu taxawee tey Sénégal ñu Sénégal am na stabilité ginnaaw yàlla ginnaaw yàlla laa wax ak ñaani stabilité bi xam ngeen li may wax su ñetti weer seen dërëm du dem Sénégal dëkk bi te xam ngeen fu may waxee kon nag lii di fulla lii di fayda lii di pas-pas lii di Pastef ak gëm Sénégal ak gëm ëllëgu Sénégal mooy képp kuy doomu Sénégal te gëm boppam te gëm ëllëgu Sénégal leneen rek la ñuy ci yow mercredi faites en sorte que vous ayez. non bëgguma jàllale euh, euh, son son li mu bëgg loolu du ko jàllale mais juste pour ngeen comprendre pour ngeen comprendre c'est c'est crocodile ok. keroog dama dem New York keroog weekend passé xam nga euh, euh, temps yi la passé plutôt dem naa fi New York maanaam weekend passé lu mu jóg ok euh, dama gis mais gars yi ay ñoom Pape Alé Niang mais ànd ak ak kii comment s'appelle encore ak le gars là bon bëgguma sax ubbi tellement je veux leur faire la promo benn waay daal bu doy waar bu nekk fii boo xam ni moom mooy yéel xaalis di yónnee Sénégal naan booy defeel ay cocktail molotov taal leen réew bi mu ànd ak Pape Alé Niang ah diaspora bi quoi donc fii la ñuy nasee yenn affaires yi pour manipuler nit ñi mais même nit boobu oh, je vais le dire Ousmane Tounkara booy boobu bëgguma ko sax cité parce qu'il n'existe pas quoi yow yàq deru Sénégal la nekkee New York wax naa leen une fois de plus ku ci bëgg la leer demal New York ngeen laaj leen kan mooy Ousmane Tounkara dem ngeen def loolu lan mooy réputation foofu à part sàcc à part sàcc oto ba loolu moo ko yóbbu jeel loolu moo ko yóbbu prison ñu takkal ko lam ah kooku moo leen di wax lan ngeen di def nan leen taal leen gas station essence kooku da am na scrupule kooku ah ñoom ñooy toog tey si diaspora bi yaayu Ousmane Sonko ah, dem seeti yaayam moom yaayam Ousmane Sonko da ko seeti quoi ñu toog si diaspora bi jël tuuti weccet comme que xale yi Sénégal dafa metti tuuti weccet yónnee ko xale ne taal leen fii defu na leen ah pourquoi may wax ci loolu mooy dafa am une liste ñoom bu ñu dressé bii pas c'est ça le rapport en fait ils ont fait une liste boo xam ne dañoo cotiser loo seen nit yi quoi pour ñu jëlee ay bus ay Saint-Louis jëlee ay bus mais li ci gën a bëri xaalis ci diaspora bi lay jógee pourquoi en deux mille vingt deux diaspora bi commence à réagir à ce point par rapport ak di intéressé ci changement au Sénégal parce que tout simplement la diaspora la dafa jeex ils veulent rentrer chez eux te dañ fi nekkoon surtout ñu nekk Europe dañ fi ñoom benn ak yooyu ñaay gars yi ñaax fayda yooyu dañ fi nekk mu metti seen côté ñu bëgg ñibbi bi ñu bëggee ñibbi ils veulent faire à la Souleymane Jules Diop ils des garanties moo tax jaral na leen lu nekk xoolal ñoom dañu toog ci États-Unis kii ba pare ne na dëkk bi tàkk dama ne xool Facebook ñi ko ci gën a ëpp làmmiñ naan na dëkk bi tàkk ils sont là aux États-Unis ils sont en Europe toog doo leen doo leen fa seen njaboot léegi yéen nag comme que da na a ñàkk fayda comme que vous voulez pas être des humains comme que yàlla daf leen jox comme ni ma ko euh, euh, ni ma leen ko yàgg waxee foowee cerveau foowee intelligence ah ak li intelligence ni mu amee solo yàlla yëkkati ko jox leen ko ngeen koy foowee comme que loolu yéen vous vous satisfaisez dans dans dans ce dans cet état là cet état d'esprit là dans cette psychologie là yéen a xam mais li ngeen di wax mooy benn benn rappel la leen def boo leen taalee kan ngeen taal kër Macky Sall ngeen non damay la est que mën ngeen jege kër Macky Sall mais moodu yi nga xam ni dañoo liggéey bay bëgg a dee tabax seeni kër foofu moom ngeen di taal parce que ci yéen dafa bëri ay egri dafa ba am ñoo xam ne ils sont tellement aigris kë ay ay ay ay ay ay souverain lañu souverine comme exemple germinal lañu ay souverain maanaam ay nihiliste lañu mooy na dëkk bi yëpp tàkk du yoon gaayen bay am oto man awm du yoon kay am étage fàttali ni yàlla mooy maye ok waxuma nag sàcc yi ñoom li ñu sàcc dama ni ñi nga xam ne dañoo ñàq tabax seeni kër jënd seeni oto teg wallahi ngeen leen romb di leen taal yéen balaa yéen ñàq fayda yéen yéen et puis yéen ay tapet ngeen quoi yéen ay mbox su ngeen booy doo ay guerrier ay su ngeen amul leen fit parce que wallahi boo leen amul fit agresseur du taxaw agresseur seen yaay seen kanam ngeen daw agressé seen papa ngeen daw seen kanam la seen biir koñ yi seen biir koñ yi la ñuy agressé seen waa kër tapet yi ngeen doon nga ragal agresseurs yi bu nekkee mouvement mbooloo parce que da ngeen et état moo ëpp doole agresseur maintenant je vais lancer un appel au président Macky Sall yi ñoo la fal même bu nekkee ñun ànd ñoon ak yow depuis le début sénégalais yi ñoo la fal quoi ñàkk fayda mi nag Macky Sall moo ngi bëgg a ëpp quoi ñoom ñoom ñooy dee wala booy yi dee donc ñoom nañu ñëw a ñu diriger ñu diriger xeex bi quoi du dañoo ni ñoom dañu kii ñu nekk ci kanam bu booy naree dee ray leen ñoom bu benn Mamadou Diop deewati du ñoom nee nañu dañoo bëgg falu nekk président dañoo bëgg falu ñoom ñu nekk ci donc asigi bi bu dee di am ñoom nañ njëkk a dee bëggatuñu dégg benn Mamadou Diop lambda euh, x bu inconnu wala benn benn euh, Ndiaga Diouf inconnu moo dee non ñoom nañu dee tirer sur un police nañu dee ñoom il faut que ça soit clair aussi chaque fois ñoom ñooy ñëw boy di dee après ñoom ñu regroupé waat nekkaat ci même group après ñoom way ñu dirigé waat nit ñi juboo waat xooleen xooleen Barthélémy Dias ak Ndiaga Diouf ah gisul leen ko moom Ablaye Wade après plus tard ah policiers yi policiers yi ci ci peuple bi ngeen bokk quoi da ngeen di obéir ay ordre et tout booy di tirer tirer sur les dirigeants quoi fekk ñu gis leen sax au moins tirer sur eux ces crocodiles affamés ces escrocs Ousmane Sonko yaa ngi bu baax da ngay déglu li ñuy wax tu ne peux pas ñun ñoo la mag ñoo la gën a muus quoi li ñu xeex xeexoo ko sa depuis le début bi procès aj Sarr bi amee ba léegi qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais mooy violence violence fii nga ñëw saaga saaga euh, euh, amee Khalifa Niass amul lu ñaaw loo ko waxul procès Adji Sarr bi affaire Adji Sarr bi mu kalaatee nga tiit loo def directement loolu rek mooy signe bi quoi premier signe bi directement nga dem seeti amère courber l'échine mu lay xas ci impec di la wàññi lu ko neex moom nga courber l'échine nangu naan man sax dama bokk ci les pourquoi parce que xam nga li nga def xam nga waxuñu dangaa violé violé humiliation bi mooy nga bàyyi ñaari jabar yéen da ngeen a ñàkk fayda waaye yéen yéen ku bàyyi ñaari jabar dem dem ci ay ay ay sud kooku mën ngeen ko wóolu mu jiitale waaye yéen a ñàkk yéen dafa mel ne ay mbaam ngeen quoi maa maa ko wax tellement je suis en colère dafa mel dooleen ay nit gain bi lu ne mu def ko fi lu ne yu ne gañ yu ne fang nga topp mu leen di jox ay moo dem tooy Casamance naan la génn ngeen taal dëkk bi naan leen léegi xanaa da ngeen a fàtte moom li mu fi doon wax xanaa yéen barki Demba Ndiaye li mu fi wax non il faut qu'on vous rafraîchisse la mémoire quoi parce que man man xaw ma li xaw ma lu leen dal quoi yéen Sénégalais yi lan moo leen dal nous avons juste envie de démissionner quoi te ci tànk yooyu wallahi la ñu nekk bàyyi leen ak seen réew yéen a xam ñoo sonn ci wax yi dañ cee sonn plus de trente ans de combat ñoo ngi fi depuis le début ah depuis le début nous sommes la ah mais yéen ngeen nekk fi ñàkk fayda non il faut qu'on vous rafraîchisse la mémoire ngeen dég bu baax quoi comme que vous voulez être des bêtes sauvages mais yéen a xam xam naa da ngeen nekk fii di saaga nit ñi wax mais je m'en fous de vos insultes déglu leen ce connard là suñ ma interpellé je dis j'ai rien à dire aux lii avant Adji Sarr la avant affaire Adji Sarr ah déggu leen li mu doon wax sa connard la. que ku ñàkk ful la si sa bopp surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla na la mais pas ci xeetu fuloo soxna la pour la construction de la nation say waajur soxla nañ la jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war leen mën a dimbali. yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji mu lay yónni pour nga xeexal ko moom doomam nga Canada wala États-Unis tëdd nga dem di rey sa bopp ci loolu ñooñu lañu war a waxal tey man aw ma je n'ai rien à dire aux yi sikk nañu ba noppi mënoo dara si ñoom mais jeunes yi dañuy topp au nom de quoi et pourquoi di génne ay gaz. dites-moi que ce connard ce gars là. ah kii déedéet ma kii c'est pas un égoïste. parce que claté nga la couche ba de claté na nga bëgg a sacrifier booy ah ndele ma sa gala n'est pas un égoïste ah sa Ousmane Sonko laa ngeen di topp ah non sincèrement boo leen demee bay xeex waree ngeen di xeex ah société civile moo ko war a gérer mais pas ces politiciens là dem leen xool ñoom Abou ñoom ñoom Abdourahmane Sow ñoom Abou Diallo ñëw leen ngeen gérer Y'en a marre Y'en a marre nga sama xeex man ak yéen Y'en a marre Fadel Barro ah Alioune Sané Thiat Fou Malade ñu ñëw fii ñi fi ñëwoon fii ba ma héberger leen jël leen aéroport vous vous rappelez may leen gars il faut ñu jàppale Ibrahima Fall c'est ce que je vous avais dit parce que da ngeen xiifoon yéen tamit vous étiez des crocodiles affamés vous avez un agenda ngeen bañ parce que man moment boobu peuple bi laay gis mais xam loolu nga yéen seen poche ngeen doon gis waxoon naa ko fi depuis 2014 nee na leen bi ñu demee laawoo Keyti ak xumaan may leen récupérer leen récupérer leen mouvement bi parce que booy yi mënuñu ko porter ok tey nan la demee tey jii ñoom bu ñu constant woon ñu taxaw fi ñu taxaw su politiciens dinañ dinañ gérer combat ah non sincèrement politiciens yi dinañ gérer combat bi xoola tey ana ñu tey tey ana caat ak kilifa tey des histoires de passeport diplomatique ah ñu enrichir leen ci ay du n'importe quoi Fadel Baro tey mais <laughs> yow affaire bi ci yow la mujjee doon yaa ngi nii dañu laa génn ci affaire yaa ngi bëgg a dee fu nekk nga taxaw ah parce que affaire na agenda peut être dafa ni wooye di nga dem next step bi pourquoi def leen comme ñun yem ci xeex sans rien demander sans demande à et am na ñu maanaam waaye pourquoi député diaspora amin on oh, c'est du loolu mooy xeex bi ba ngay nekk il faut am ñu gérer une bonne répartition des tâches il faut mu am ñi gérer lii ñi gérer lële ñun ñu gérer fii nii ñu nekk ci lii mooy ñu nekk relais entre peuple bi ak ak ak gouvernant ah ñu nekk def office de porte de de contre pouvoir loolu moo war a nekk suñu job mais pas ñu ñëw naan après dañu nekk lii wala dañu jéem a kii ku ko def parce que depuis le début boppam la doon xeexal depuis le début c'est ça en fait signe tey tey ana ngeen tey yanamar le peuple a besoin de yanamar original de vous pourquoi vous pouvez rien faire on vous écoute plus pourquoi vous n'avez même vous n'osez même plus prendre la parole da ngeen defoon dama leen a bañ loolu ngeen foogoon ah mais euh, Alioune Sane mënuñu mag yow ñu bokk benn la ñuy ànd di waxtaan ci lu nekk après ma lay bañ ko mënul nekk ko ok kilifa mënuñu ñëw sa jabar ah ñu tuddee ko sama yaay sa jabar ok ma lay bañ ko non mais c'est juste que ay caat ah au moins am na benn honneur mooy da ngeen ne bi ngeen ñëw diaspora mataar lañ ci wóolu mais peut-être da ngeen jàppul woon Matar xamu leen ma woon quoi ok moo tax peut-être ngeen ñëw right mais tey li ma leen doon wax anamu tey kan mooy dund ko tey Fou Malade tey bu nekk woon ay ñoom Racine Talla magam yi li ñu bokk ci système bi Fou Malade du disparaître na bu yàgg ah mais c'est parce que papa magam moo bokk système moo tax mu nekk sax ay jàkkaarloo mais soyons donc li leen doon wax kenn bañul kenn lii lañ leen doon wax maintenant naa peuple a besoin de vous mais vous avez sacrifié ce peuple bàyyi leen les politiciens les politiciens affamés ak autre crocodile raca euh, crocodile rassasié donc xeex bi buy am xeex buy am ci réew na ko société civile bi porté politiciens yi dañu am ay intérêt te war nañ leen seen bopp ñi yeewi askan wi war nañ leen ñoom ñooy ñan comme des caméléons maintenant est-ce que ñoom war nañu dem ñu am seen problème si seen liste ah yéen ngeen ñëw di leen xeexal yeen non mais ñàkk ngeen fay la non yéen yéen yéen yéen noonu non man li may wax la rek boo leen mënoon ngeen nekk ñaar ma jur dinaa leen dóor a dóor ba ngeen bëgg a dee tellement da ngeen mel ni ay mbaam sauvage xool leen déglu leen déglu leen déglu leen déglu leen le terme dama xam nga euh, c'est exaspérant le fi li fi am déglu leen ok vous allez voir vous allez comprendre li ñuy wax lan la xoolal ay ay ay des gens qui n'ont rien compris ah déglu leen déglu leen say connard la te Macky Sall ñoo ngi xaar ngeen arrêté ngeen arrêté sa ces gars mi nekk si kaw ak rag mi nekk ci kaw ah déglu my fuckers. gars yi ok ñun ñëpp ay boy town lañu quoi jaar nañ si town boy bi di sóob nii ah non xam ngeen ni boy bi day sóob quoi <laughs> boy bi siw la bëgg quoi ah siw la bëgg si à la fekk loolu laa bëggoon ngeen dégg ko man ci ñi jàppale woon Marème Faye Sall laa bokk donc kii politicienne la depuis le début xool ni muy manipuler ah elle est là à manipuler xoolal cette dame seytaane là yow xaw ma yaay kan mais seytaane nga seytaane bu mag nga nga naan waaw xale xaw ma na no say doom <laughs> ok mais yaa ngi sacrifié doomu jàmbur yi booy yow mii di wax si kaw police sénégalaise police sénégal booy bi boo leen ko jàppul boy bi boo leen ko jàppul ngeen ngeen tëj ko sa petit sa petit con bi boo leen ko jàppul ngeen tëj ko ah fexe leen ngeen jàpp ngeen tëj ko ngeen filmer ko comme ni ngeen defoon comme comme ni ngeen defoon xam nga policiers yi gars dañ leen commencé yàpp dañ leen commencé yàpp quoi yéen seen bopp la police sénégalaise gendarmerie dañ leen commencé yàpp ah boy yi léegi ñooy taxaw di bandi bandilu naan ay xolo boy bi xolo boy xolo lex yi xolo boy boo koy mbéj muy dee boo ko xolo non man imagine égo tripping bi quoi ngeen di déglu non man sama xeex sama xeex il veut se faire remarquer suba ñu ne way lii ñoom Y'en a marre am moom mu mën ci am mu mën a nekk star c'est seulement ça le plan c'est ça le plan soob rek la ñuy def riirandoo soob ñu xam nañ ñu mu demee yàgg nañ ci temps bi booyi soob la ñuy def pour dugal yeneen booy après ñoom ñu nekk star yi déjà yow kuy kuy teg stratégie nga war a xeex ngay xeexal dëgg est que de war nga toog fii di def ay par exemple man ma war a xeex Macky Sall quoi live laay def ñëw nan leen non damay jàdd koñ bële ma jàddee koñ bi après ma fële euh, côté mi Jean Mermoz ma kii dama koy divulguer dama koy teg euh, sur l' espace public pour vous dire que booy bi ci déglu ces petits cons là ah ku leen ci déglu yow yaa parce que tu es plus bête que parce que li metti mooy xam nga nit mën nañ la nax sax ko mais nga nangu con di la nax con dof dof nax la ko mais bu la dof naxee yow ndaw doo nit ces bêtes sauvages là ñoo leen nax Sénégal lan moo leen dal non lan moo dal quoi man question boobu rek laay lan moo leen dal boo leen di xeex ngay xeexal mais mais gars yi seen liste affaire élection législative la lu leer nañ mu so Sonko génn na ci kiyam mu ne woy a ah, caaf xam na parce que ñu ñoo def erreur bind ko ci page mu wax leen ko yéen ñëpp après mu ñëwaat retourné ne leen dem leen ngeen xeexal ko ngeen xeexal Ousmane Sonko tapet gis ngeen ko fi kii Medina daw yi mu fi daw ah man maa leen maa leen défier je vous mets au défi Ousmane soko nee na taxaw ci kanam xeex bi ngeen xool bu ko defee xoolal bët yi comme 408 lay mel fourne bu mu romb dina boy gaz bu mu romb dina fay ndax gaaw lu leen laa leen wax. gain bi depuis le début bi ma ay jàppale ay deux 2015 la ñi ko xam ne ma bàyyi gain bi tapet la quoi kii de salon lay def du mës a xeex xool. seen kii bi yëpp affaire réseau comme ni ñu ko defee gère réseaux sociaux parce que loolu la ñu xam maintenant yéen a xam quoi bu leen neexee ngeen génn ngeen dem xeexi yéen a xam li ci toy wallahi ci yéen lay jóge boo leen xamul lan mooy état xamul leen lan mooy doole état xam ni état même booy xeex ak moom il faut nga use sa brain nga stratégique xamu leen loolu ñii di leen sacrifier ngeen dem amu leen jom xool leen ci Mamadou Diop amu leen jom xool leen ci 14 xale yi dee temps yi passé ah amu leen jom amu leen fay da ngeen a ñàkk fayda ah. mais dem leen dem leen dem leen ah non lëbit génn police ak gendarmerie Macky Sall ngir yàlla mais soyez du truc non <laughs> maa waroon nekk policier non maa waroon nekk président tey ma nekkoon président non parfois am na sama benn frère mu ne ne ma ne Sénégal réewande bi ah moo tax ma bëgg ma dem defi droit quoi bàyyi naa branche bi léegi droit laay def pour nekk juge quoi damay fil naaw lu tax mu doon wax loolu quoi ah et puis et ay aar Sénégal am na ñeneen ñu taxaw ñoo xam ni bi ñu waxee liste dañ ko def normalement bi ñu waxee ba pare ay nekk ñu set juge dem Thierno Alassane Sall Thierno Bocoum Abdourahmane Diouf ñoom Théodore Monteil ak euh, ndaw soo ñi fa nekk ñëpp dañoo clé mel ni ñun dañoo sës ko dañoo sës est-ce que dañoo dañoo dañoo nekk dos au mur non nous sommes pas dos au lépp nag li ñu soxla lenn kese la mooy ku ñu xeexal ñun en tant que askan mais am ngeen ko ngeen bëgg toog gars yi nga xam ni ah, mais taal réew mi la ñu bëgg mais ñu leen di jox ay ay mot d'ordre gars yi dem leen ngeen dem quoi xeexi leen quoi xool ngir yàlla fexe leen lewit ngeen dem xeexi dégg ngeen ah. dem leen ngay xeexi ñu rey leen bu leen rey ba benn booy ñëw fi di jéem naan Macky Sall dara ba kenn ñëw fi wax fi un xam nga xool nag ñoom ñi leen yónni ndax seen kenn seen mbokk yi dina dee bu leen rayee ba pare boo leen demee ba àllaaxira ba barzaq ngeen xoolaat ne ñoom ngeen wër foofu biir barzaq ndax di ngeen daje kenn ci ñoom seen doom yi wala ñoom wala ñoom wala seen doom yi ah ngeen di en pâture rekee la ah, en tout le temps ngeen ñàkk fayda naan ne ku ci dem marche dangaa sa yaay yuram say mooy loolu ah na koo xam ni amul jom amul fayda njaru sax ñu koy jur man loolu laa jàpp ku ci dem ci marché bi ah jaru woon sax ngay nekk ci àdduna jaru woon ñu lay jur da ngaa sonal sa yaay rek wax ji déggee leen ko nu la neexee je m'en ko quoi je m'en parce que da ngeen ne mérité ñu wax ak yéen ak langage bu nekk quoi mais je m'en fous je m'en fous may wax ak yéen parce que vous êtes bête vous trop bête boobu ba léegi ñu leen di nax ay politiciens di leen nax mais continuez leen wallahi boo leen xamul rasulullah sallallahu alayhi lu leer la wax lu tax mu ne bu leen révolté wu ci ay état pourquoi mooy surtout violence quoi ah te te ça va être violent parce que mouvement de foule mënoo ko contrôler chéatine la ñu nekk ci biir ok pourquoi mu wax loolu parce que xam na li yàlla jox nguur doole bi ko yàlla jox foo leen gisee nguur tout le temps mais day am problème day am problème parce que ça va violent ndax état de bronze sax ay ñoom benn ali waree ba ñoom ñoom kii mais ñun yoruñu man mindset boobu ñu pour loolu loolu dañ ko cuisiner te loolu américains ñoo ko téléguidé ok mobilisation pacifique ñoo bu boy ay institut Einstein ay Google dañu yónni ay boy ok formé leen comme ni ñu def waa Y'en a marre ok kii leen gis ngeen kii bi slogan bi fépp ngeen koy gis ci adduna bi ñoom ni ñu doon def nii fépp ci adduna bi dem leen ngeen xool non dem leen ngeen xool dem leen Google ngeen xool fépp fu am mouvement parce que même nit yi ñoo ko téléguidé mais yéen téléguidé ñu dara ay politiciens yu xiif ñoo leen téléguidé donc fu muy mujjee ci seen liy tooy ci yéen lay jógewaat encore une fois da ngeen a ñàkk fayda waaye jarul leen sax nit waxal loolu naa juste envie de démission bàyyi leen ak seen dëkk yéen a xam dem leen bu leen fàtte ah please dem leen le vingt le huit dem leen ah Macky Sall bu ñu demee matal leen dóor leen ba ñuy bëgg a dee génneel police gendarmerie dóor leen ba ñuy bëgg parce que ñii ak ak seen arrogance beeg rëy gat bi ñu nekkee ba leen ma bi ah xamuñu lan mooy doole ñun lan lañ teg ci loxo Macky Sall quoi xamuñu lan la ñu teg ci loxo Macky Sall bu ñuy kii a génn leen armée bi leen ba ñuy bëgg a dee jàpp seen leader yi dóor leen ba ñuy bëgg de ñoom ñëpp booy di rëy lamiña ah, fexe leen ngeen kepp leen ngeen filmer ngeen xool lan lañ ban discours la ñuy tenir bu ñu leen yóbboo ci ci prison ndax duñu tenir le contraire booy bu nekk jóg di bandi bandi waaye allez vous faire voir waaye yéen doo leen ay nit doo leen ay nit yéen a xam dem leen ngeen xeex yéen a xam seen affaire